94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem ko toppal 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi nga xam da leen ko defal saa leen siyaar na leen wooy leen di toppal 94 Walf Sénégal Pape voilà booy bi nag gars yi xàmmee nañ ko moom ci Yewwi Askan Wi la nekk mu nekk booy boo xam ni dafay def ay révélation yu am solo démb rek ci confrant de presse bu Yewwi Askan bi gis nañ ko muy leeral te moom xam nga dafa fasaaxa ay kàddoom macha allah te xale la voilà comme nag démb def na conférence de presse bokkoon na ci ñi doon def conférence de presse fële ci Yewwi Askan Wi gis nañ ni nag booy bu xarañ la booy bu ñaw la waaw ginnaaw bi mu ko defee ba noppi nag bi mu xëyee moom gis nañ ni daal maanaam dañ koy sensé dañ koy affecté fan lañ koy affecté maatam lañ wax waaye daal euh, affecté maatam ak ginnaaw maatam fu mu mën doon Sénégal Sénégal rek comme liggéeykat affecté nañ ko maatam bu demee maatam liggéey rek ndax maatam ci Sénégal la bokk xale la te booy bu ñaw la booy bu xarañ booy boo xam ne macha allah Pape Demba Touré voilà beneen bi ci des tamit moo gën nekk ndakaaru di taxawaaru rek liggéeyoo ba woo waaw te ba pare amu benn xam-xam amu benn compétent comme am na compétent buñ koy affecté ca maatam ndax maatam ci Sénégal la bokk. voilà bu demee liggéeyal Matam rek ndax maatam moom ci Sénégal la bokk kan affecté bi du ci dara ndax génnul Sénégal te ñun Sénégal rek moo nu ñor surtout nag xale yi nii nga xam dañoo xarañ ba pare ñëw ba pare nag am engagement nungoo liggéey seen réew kon fu ñu ko mën affecté baax na na doon Sénégal rek voilà kon daal yaakaar naa ni Pape Demba moom xamee nañ ko nekk na koo xam ne nii ci yeewi askan wi la la la féete moom fi mu far yaakaar naa ñëpp gis nañ ko voilà Sénégal nag noonu la kenn ku nekk rek voilà am nga engagement far neex am na ñoo xam ne tey jii voilà ci euh, Karim Wade lañ féete am na ñoo xam ne nii tey ci Macky Sall am na ñoo xam ne ci Ousmane Sonko am na ñoo xam ne nii ci Gakou Malick Gakou am na ñoo xam ne ci Bougane wala Sénégal a ngi noonu loolu mooy Sénégal di kenn ku nekk am na foo féete wala mais nag à part loolu yëpp bu weesoo nag ñu liggéeyal Sénégal jël Sénégal teg ci sunu kanam moo xam mag la moo xam ndaw la moo xam jigéen la moo xam góor la voilà li ci ëpp solo daal mooy ñu jël Sénégal nag te ci suñ kanam ginnaaw bu ñu faree fi ñu far ba noppi ñu liggéey nag Sénégal ñu liggéeyal Sénégal nag te yàlla rek a tax bañ a liggéeyal suñuy poos ak suñuy banque ak yaama gën a xar yooyu nga xam ne daanaka mën na moo nekk ci suñu bopp yi kan daal wax dëgg yàlla booy bi di eh, jàmbaar di koo xam ne wax dëgg yàlla ay waxam fasaaxana leer na te am na engagement te nekk na xale te jàpp naa ne nangu naa liggéey voilà kan wax dëgg yàlla dañ koy félicité bu baax a baax a baax di wax ni rek gis nañ ko porté gi nga xam ne porté na ko Sénégal laa wax de Sénégal waxuma la ay parti voilà kon nag ca kaw ca kanam rek képp koo xam ne daal ndaw nga am engagement foo mën a far ci yii ma tudd yëpp liggéeyal Sénégal ndax image bi moom daf fii des voilà yenen yi ñu ci am nag mën naa seeyaat waaye sa image yow day des ndax liggéeyal gi nga xam ne ni yaa ngi koy liggéeyal Sénégal 94 Walfu Sénégal lii la leen indil.